vite fait ñu ràññee ko ci crème bo xamni kat manam boko ko sa yaram yooyu duñ la laal ràññee ko ci ciuray bo xamni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yo xamni ni fu ñu gis ay gunu rek mbot ray ko ràññee ko ci poudre mbot bo xamni suy mu ne ngalañ waaye ñu daldi am pâte dentifrice am boss kon la gamme vite fait mo leen di may kooru waju baax lii meew la ne woon leen dinaa jommal kenn par kenn nak wa Sénégal Ya, Doli, yow li ma la defal naana googu ya, dollil ko lii dafa baax ci yaxi xale dollil ko xam nga ku la jomma kii nga xam ni kër gu mu dugg ñaan fa jabar ñu may ko kii mooy lait stérilisé caramélisé xaritu xale yaa ngi nii ak mag ñi jëm bitel ba jekk na liggéey ba sell na neex na am fraise am na li ñëpp doon xaar yegsi na nee dama na lait stérilisé caramélisé cerwiranteetu ko Vitale qualité meew supérieure Vitale ngeen yàgg ànd moom mu yàgg leen a gunge Vitale di may kooru waaju baax waaw. may sa koor ren ji ah? koor gi nag am na ci ñu mu neex am ci ñu mete de. Ah. koor gi kay ci militaire la méttee. ci militaire yi. xam nga ci fu mu la gën a neexee. te hmm. sapeur pompier yooyu. ah xam nañu neexee ci militaire yi méttee ci sapeur yooyu. sapeur yi kat dañuy taal seen oto yi naan weew ah. nga defan dañuy fay lakk. fekk ñoom ñooy xëppante ndox ci seen <laughs> ndax ragal koor rek. sapeur pompier yi ni ñu ragalee koor te ñeme ndox. waaye wax dëgg lu nag. koor neexut a ñeme nag. Eh? gars yi daal tubaarkàlla. koor sapeur pompier gën a neex. ay léegi la ah. célibataire sapeur yi. ah waree dañuy xëppante ndox de. Eh. <laughs> naan dañoo demoon intervention tooy xepp. ak ñoo ragal koor te ñeme ndox. Eh, dañuy ba nga dee fa lañ ñu ndox seen bopp. <laughs> ma ne ko sorcier ah. sorcier ba ñëw na. ñëw ma. eh kan man man. ñëw ma. ñëwuma kii ñëw ah, ñëwuma ah dama yaakaar man danaa dem moom waxante man danaa dem moom tubaarkàlla salaamaaleykum ah bel garçon na nga def alhamdulilah ça va dëgg la dëgg la ah ah incha allah yal na yàlla defal jàmm jërëjëf jërëjëf yal na yàlla defal jàmm jërëjëf ah merci beaucoup marhaban ah tubaarkàlla ah! di laa nah, ilaaha illallaah yaay kii ah kii maa ko xam lu mu doon boo demee oma la la sarax mbaa fël fël kii lu ne lay sarax kii sax moom Ndiaye kii ma joxoon saabu yeeg njàppe ah moom ngi nii de ñu ko xool rek ah way <laughs> ah. lii de bu dee bu dee saabu ak njàmpe ku ko raxasoo dara saf om om ak bul laa ilaaha illallaah ku la jox lii muy yow. ah Ndiaye Ndiaye. waaye déglul déglul kii dafa juum naa nun ñaar daa juum xam nga ne ah! Ah! ah juróom fukki junni waaye demal demal bu la bu la raw. jàng dawal Sénégal ni la metti du sama yoon du yaa ñëw Sénégal ba pare man ñoom respecté wuñ benn code am tiyaaj bi tey gi waaw na amul naka yite yi maa ngi sant bu baax kay alhamdulilah alhamdulilah aarikal alhamdulilah naka yi ñu sant ñàkk xam rek nga baal ma àq de ah amul xam rek wallaay daf ma ne laa romboon fee man nga romboon foofu ah nga dëkk man nga ma romboon foofu ah nga dëkk ñàkk xam rek ah waaw ah, waaw fii yëf yi ah, desee sa baay fi mu ne nii xam naa li may doyee kay ndax dama ñëwoon nga ñàkkal mais solo wallaay man kay may jàmm rek damaa xawoon yàq man kay may traiter rek ah jërëjëf yal na la yàlla fay li nga bëgg yaa xam yal na la ko yàlla defal ku baax nga njàmbur njàmbur yëpp baax yal na la yàlla defal jàmm ku baax ngi ni waay jërëjëf jërëjëf yii jàng tey moom xam naa dama fi ndogoo danga may bàyyi rek ma dem prochaine fois ñu ñëw def suñu ndogu bu toj yaa ngi dégg hmm. wax ak man waaye danga wax ba pare nii yow kan nga yàpp si la yow man di nga ma nduggloo ma ginaar jëndaloo ma merguez fruit lu ne nga jëndaloo ma ko. nga ne ndogoo ba prochaine fois rek ngir yàlla. prochaine fois ñu def suñu ndog jël suñu temps yaa ma gën a xam ràcc waxtaan. du changé dara. xool ma wax ji laatul man bu jour centimètre fii ngay ndogoo. waaw baax na am problème. waaw Mariama noo jógee Amérique ñëw Sénégal <laughs> toog nag ràcc di def lan. ak Amérique li nga xam ne ñëpp fa la ñuy rêvé dem surtout man man nga xam ne su ma fa dëggoon sama tànk non kenn waxatu ko après yow nga ni danga nga dem Amérique nii ñëw ñibbisiwaat Sénégal pour lan ak lu la ko jaral. waa léegi yow man man damaa dëkk Amérique da nga fàtte man Amérique lenn moom fa yóbbu woon jàngi am samay diplôme am fa li ma bëgg ñëwaat instant bi nag damaa ñibbisi. <laughs> pour investir fils. sama ne peux investir Sénégal ki ñu investir. won ñu ibi won ñep tej nañ yow de investir. xamone ay bo xamone investir. waxati investir fi Sénégal de. <laughs> am na lu la man mhm. bima ay fan non <laughs> pour te dire. gaa bi bu ma ko gisee ba léegi amatuma jàmm te miinanteeguñu dégg nga gaan bi bu may nelaw moom lay xalaat su may lekk moom lay xalaat bu may naan di sangoo lépp gaan bi lay xalaat fii yaa ngi ci erreur nguur Sénégal gii kon de alal la toppee wala li nga yor motax ñu top la xolaatal hmm. fi ngay tek sa tag bu baax man de lu matal góoram ko yobbe dama len sax jaar faf ragal goor ñi dañuy profité say bien ya ma gëna xam rom lañ li dem tak nak keneen waxuma sax nak lool per dem jugu jugu jugu jugal dem defal ndog ah fuy nak yow xif ta dama wo ah, ya sa ngir yàlla doo ko sali ba xam nga ne mos demul <laughs> malay arrange ngay dérange ki leer na ma ni rek xaalisam lañ ko toppee waaye bu xamoon ay bu xamoon su boole wax kooru waaju baax bi jar na seetaan waaw ratata ca wañu baax ji sunu koor neex na cas ca wañu baax sunu koor gi neex na cas mu ca wañu ay man nag sek la ma jox ah kon yaa ma ëppale li naan cas cas ak ba neex naa cas cas ak ba <laughs> yaa ma boo paree pes ma ma ne ma yee yaa ma ëppale ah waaye xam nga lu ma lay xamal waa ji baax sa wërsëg tollul nii ah sa wërsëg tollul nii waaye kii du la jox ñaar man nag xam naa ne xam naa la am nga loo nar caay caay am nga caay caay jooy waaj xaalis jaral na lu ne attan nga cee rey nit man nag defal nii maa ngi ñëw dem sama kër. Ndiaye eh eh yow xaalis tax ngay jowaat yoon bi yow. wax nga dëgg sax man xamatuma sax lu may xaw na ko ku nekk sa wërsëg sa ambaloog. vraiment vraiment vraiment daal man. waroon dara de Ndiaye. vraiment dama la suy bule nga mel ni 18 h vite fait ñu ràññee ko ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñ la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ko it ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pâte dentifrice am boos kon laa gamme vite fait moo leen doon may kooru waaju baax Vitale qualité meew supérieure Vitale ngeen yàgg ànd moom mu yàgg leen a gunge Vitale moo leen doon may kóoru waaju baax.